jaajëfal nañu leen mbokk yi ci seen àndin ak la des leaders Senbuzz TV ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane bu baax a baax ci àndin beeg wétiluku gi baaxoo nañu di leen toppal lépp luy actualité bokk na ci li gën a fës ci actualité comme ni ñu leen koy toppalee depuis ay bis bi yëpp libération yi nga xamee ni jamono ji mi ngi am ah, ci ñenn ci jeunes yi nga xamee ni jàppoon nañu leen ci li nga xamee ni mooy manifestation yi ñu tuddee leen ay détenus ah, la moom nag fii ci xam waxtu wi ñu koy jàpp amoon na ko euh, ci li nga xam ne mooy parti ex moom nag bokk na ci ñi nga xam ni jot nañ leen tëj au moins lu mat 7 euh, mois monsieur Diédhiou kenn si détenu politique yu ñu libéré la moom la seen bés di am ak jotaay Diédhiou pour commencer maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la gërëm ci dalal bi nga xam ne dalal nga ñu ko sa kër maa ngi lay fay mhm. euh, di la nuyu di la remercier di remercier ñëpp ci liggéey bi nga xamante ne na koy def muy jotali information sénégalais yëpp muy lépp li nga xamante ne xew na fi Sénégal mhm. yéen a ngi koy propager di ko divulguer ñëpp di ko yëg vraiment ñu ngi leen di ci loolu noonu jërëjëf monsieur ma nga yëkkati koy wax léegi bu ma juumul ci responsable des jeunes yu Grand Yoff ci nga bokk euh, ban poste wala ban position nga amoon ci parti bi fii nga xamee ni mooy ci Grand Yoff voilà man maa ngi nekk fii Grand Yoff depuis mhm. euh, ma dugg Pastef en euh, ma duggee Pastef en ma installé benn cellule fii ci xaar yàlla ginnaaw fois des jeunes fois des jeunes de Grand Yoff mm. nekk fa responsable muy coordonnateur euh, cellule mm. euh, nekk fii Grand Yoff aussi comme koo xamante ne moom mooy jaay carte membre yi di jaay bracelet yi di jaay lakos yi jaay blouson yu demee noonu. Mm, xam nga fii ci mm. Grand Yoff. d'accord donc ce qui veut dire que amoon nga actif bu baax a baax ci parti Pastef quand même. bien sûr bien sûr amoon na j'étais tellement actif. dans mm-hmm. dans le parti. waaw daan naa dem ci instance yi réunion yu demee noonu xam nga voilà j'étais partout daal xam nga. d'accord alors euh, bala dugg ci waxtaan bi bu mu juumul lu jiitu ñu lay jàpp aussi am na benn liggéey boo xam ne yaa ngi ko doon def pour yor ci sa famille. Euh, mm-hmm. ban liggéey nga daan def. voilà man je suis enseignant depuis 2019. Euh, ma am aussi benn euh, place muy mille service nga xamante ne maa ngi ko doon doxal fii. Mm. muy ñaar mille service la sax. beneen bi activité politique yi day tax ba ba ma tij ko. voilà mu dese woon ma benn. mu nekkoon fii fii laay jaayee matériel yi daal xam nga muy lakos yi ma fi jot a lim yëpp fii laa koy jaay sama mille service bii nii. d'accord waaw loolu laa doon yëngu ci genre ci activité. d'accord très bien alors nga bokk ci jeunes yu ñu arrêté woon ba yóbbu leen fële nga xamee ni mooy yoon mm. mën nga dikk ñun ci lan moo waraloon yoon teg la loxo. voilà li waraloon euh, yoon teg ma loxo muy man je suis un militant militant responsable mhm. de l'ex-parti comme ni ñu koy waxee mhm. euh, Pastef voilà amoon taxawaay bu bu bu bu mag a mag ci biir parti bi waaw yaakaar naa lu la waraloon xam nga ñu ñëw jàpp ma ko wax ma d'accord si woon fii ci Grand Yoff ah mhm. voilà comme ni ma ko waxee maa fi jaay lu bëri bëri léegi de de sorte dafa dafa dafa dafa tax fii boo dugsee fii Grand Yoff boo laajee landing Pastef rek dañ lay indi sama place. d' accord waaw dañ lay indi sama place ko d' accord alors Landing Ndiédiou euh, yan condition ci lañ la arrêté woon mais aussi lan moo waraloon ñu arrêté la dañ la fekkoon ngay manifester hmm. dafa am fu ñu gi yow lan moo waral ñu arrêté la ak fan lañ la arrêté. voilà arrestation bi. Euh, hmm. pour commencer euh, bettu ma woon. Hmm. waaw parce que dama ne woon faaw ñu arrêté ma bu ñu arrêté Ousmane Sonko waaw dama ne woon faaw ñu arrêté ma. léegi arrestation boobu noonu c'est pas parce que dama wàcc terrain di manifester dañ ma fekk sama place jàpp ma waaw ci jàpp boobu noonu d'ailleurs euh, dañ ma yàgg a wër dañ ma yàgg a wër may moytu ñu may continuer di wër ba ñu jàppee Ousmane Sonko voilà ma dem ba ba mënatuma laqatu ko affaire yooyu noonu waaw may dox samay soxla ne fu ñu may jàpp daal foofu la waaw euh, yàlla tax benn jour avant ñu may jàpp mm. ñëwoon nañ fii di def ay investigation waaw ma xam ne kii gars yi dañ ma yoole quoi affaire yooyu noonu ñëw nañ fii laaj laaj am ay information yu soxla dellu mhm. lendemain bi depuis 11 heures ñu may wër 11 heures laa wax de xam man su ma xëyee maa yor moto su ma xëyee damay tourner rek dem livrer ji ay mhm. kii multi si dem verser xaalis mooy sama place wala mhm. affaire yooyu noonu nu ma tourner Grand Yoff tourner nañ ko fourgonnette sept pick-up ak xaw ma xaw ma ban façon oto mooy huit mooy neuvième bi. ce qui veut dire yàgg nañ la suivre. pour nga depuis onze heures. Mhm. nu ma aw aw nañ ko. fu ma dañ ma doon tracé daal damay dem ba dajeek ñoom damay dem ba dajeeg ñoom ma ne mais fourgonnette Grand Yoff fourgonnette mosul ñëw Grand Yoff lan la fourgonnette di def fii Grand Yoff mais mosuma posé wu question ni ki man lañ nekk di wër ma dajeeg ñoom rombante en ce moment dama dem ba côté euh, Talibou Dabo mhm. ma tourné ñëw tourné ñëw ñëw boulangerie Bamba ci mille service benn copain toog fa yàggul rek ñu yegg si ñëw ba foofu noonu rek ñu taxaw dañoo taxaw rek après continuer quoi dem ba Talibou Dabo mhm. tourné waat encore ñëw man ma yéeg moto bi ñëw fii d'accord euh, sama place bi mhm. ak benn technicien wifi ku mhm. parce que temps yooyu noonu données yi daan doon dem bien sûr booy dañoo dugg sama wifi bi piraté ko di ci connecté wu quoi ma indoon technicien pour mu ñëw pour mu ñëw vérifier ma gën ma koo protéger quoi d'accord yegsi naa fii même pas dix minutes. Mhm. ñu yegsi fii mais man bu ñu ñëwee fekk man maa ngi sëgg sama téléphone. ñoom da koy ñëw yëkkati micro bi rek gaare oto yi. Mhm. gaare oto yi ba installé wu barricade koñ bi yëpp pour une fois bu ñu may jàpp. Mhm. bu gars yi riposté rek ñu mun leen neutraliser ko affaire yooyu noonu. d'accord ñëw barricade koñ bi yëpp. ba pare song ma. juste pour pour t'arrêter ñëw nañu ba barricade koñ bi donc ce qui veut dire que ni dañu indi woon équipe bu mag quand même. neuf voitures huit huit sept pick-up ak xawma ban façon ak ak fourgonet ñëw rangloo ko nii koñ bi gars yi génn koñ bi génn ni mariage bi nga xamante dañ ko yàgg a waaj waaj laa lay wax nii comme terroriste bu Sénégalais yi yëpp di wër terroriste bu Sénégalais yi yëpp di wër laa lay wax nii kaggulewu wàcc ki yoroon appareil bi di ma doon di ma doon naka lañ koy waxee di ma doon euh, tracé muy mm. géolocalisé mm. moo ñëwoon taxaw sama wet mais gisuma ko woon fekk maa ngi sëgg di kii sama téléphone di liggéey sa liggéey waaw mhm. jékki-jékki rek woo ma lan diñ jéeju ma siggi mu ne ma ci en d'arrestation ba pare moom mu beru daa beru rek ay pon ponkal yi ñëw songu ma këf sama téléphone bi rek téema nii téema nii kii daa téye fii kii téye mhm. fii njëkkati mhm. ma pamti pamtee ma yëgal ma ci kaw muy maanaam man waxuma la ni ki ci aw la ci kaw laa dëgg mais ñoom am nañ information boobu noonu dugal ma ba fii sama soxna dafa tëb. yëkkatil nit yoo xamante ni moom mosu leen gis. yan heure la woon loolu. ay 16h ah 16h. léegi xoolal mhm. ñu ma doon wër ba 16h lañ may soog a jàpp. ñu dugg si fii soxna si yeewu rek gis leen rek mu daanu. daanu parce que da daal mosul gis zaaru. nit mel nii quoi dafay nekk choc dafay nekk ñu wàccee ma. Mhm. wàccee ma dugal ma fourgonnette. mais bi biñ la yëgalee ci kër gi lan lañ doon wut. la je veux dire lu taxoon ñu yëg fii dañ ma yëgal pour ñu xam fii nii quoi. après wàccee ma dugal ma fourgonnette yéegaat yéegaat dugg ci balcon bi fekk fa ay bouteille plastique bouteille plastique waaye mm. sama soxna doon dajale pour defar jus for ko for for ci quelque quoi yéegaat terrasse xam nga lii tabax bees la mm-hmm. tabax bees la mooy bouteille yu ko peinturé bouteille yi ñu peinturé lii ñoon ci garaawaay yi dañoo tas garawaay yi foofu noonu for bouteille yooyu bouteille yooyu mm-hmm. noonu yëpp indi ko yow dugal ko ci oto bi sama place mm-hmm. dama fa amoon ñaari vingt litre ndox ñaari 20 litres ndox dañ ko yóbbu mbalit bi dañ ko yóbbu bracelet yi maa ngi amoon 50 et quelques bracelet xam nga man nee naa. bracelet yoo xam ne da nga ko doon jaay voilà justement ci brace ci mbuusu bracelet bi maa ngi fay dugal xaw ma ñaata xaw ma 30 36 mille affaires yooyu noonu daal xam nga. ok yëpp la ñu yóbbu quoi. dem section de recherche. Mhm. ñu ne dama doon dajale loolu noonu mooy butéel yi ñu for yooyu noonu pour defar cocktail molotov quoi. Mhm. waaw te ay butéel vide lañ ay butéel vide yoo xam ne sa soxna moo ko bëggoon utiliser. pour di jaay ay jouet affaire yooyu noonu. d'accord yëkkatil micro bi tuuti ñu ne dama doon dama doon dama doon dajale yooyu noonu pour defar cocktail molotov quoi affaire yooyu noonu. ok ba pare chargé dossier bi nag chargé dossier bi. d' accord jiñ ma du tout tout tout voilà du tous les types de chefs d' inculpation. d' dinaa ñëw ci chef d' inculpation yi mais euh, ndax jamono bi ñu ñëwee ba jàpp la ba wàccee la ba oto bi mhm. foofu euh, xaw nañ la brutaliser wala lañ leen dund ak yow foofu bi ñu la dugalee ci oto bi. bien sûr dañ ma bëri dañ ma brutaliser. Hmm. parce que mayuñu ma sax ma de kii daa téye fii rek kii téye fii ay ponkal jëm kaw xoolal sama tànk yi bu ñu may yéegal ci kaw sama tànk yi pour ñu laal escalier sa problème la mun mënu ma la expliquer. comprendre fu ma nekkoon sax moment yooyu noonu. Hmm. tellement nuñ ma doon pamti pamtee. tellement nuñ ma doon pamti ñu yëgal ma ci kii bi ci fourgonnette bi. ma hmm. fekk fa benn gendarme mu jékki-jékki rek dóor ma fii. tël bi nga duggee ci oto bi bu ma duggee ci fourgonnette bi mu jékki-jékki rek dóor ma fii ma ne ani bracelet yi tontuwuma ko keneen ki ne bu ko dóoraat. léegi noonu lañ noonu lañ noonu lañ ma kii yóbbu. d' accord d' accord alors mais mais choc boobu nan la ko soxna si dundee ak seen njaboot gi nekk sa kër ñu toog rek GIGN walla ay homme de tenue yoo xam ni xëy na neexu ñoo xool ñëw sa borom kër ñu indi ko sa wet te xëy na xamuñu lan moo xew choc boobu nan lañ ko dundee ñoom. franchement benn torture morale benn torture boo xamante ne foo ko nattu weesu na fa parce que mënuma comprendre koo xamante ne. Mhm. moom dafa ne Sénégal la bëgg. ne mhm. patriote la. Mhm. xeex ngir réewam. un combat désintéressé muy maanaam xoolu ci leneen lu dul Sénégal nga ñëw di ko jàpp indi armada boo xamante ne. Mhm. Ah, kenn mënu ko comprendre. kenn mënu ko comprendre dugg si fii ma téema xoolal indi ma de manière mano-militari yi fël nii fël nii mu nekk loo xamante ne lu ma metti la. lu ma metti la mais puisque euh, aw ma doole moment yooyu noonu j'étais obligé. voilà résigné wu quoi voilà voilà ñoom quoi. collaborer très bien d'accord mm-hmm. d'accord alors bi ñu la jàppee ba pare. Mm-hmm. fan lañ la njëkk yóbbu. pour entendre la yi ci war yi ci war. waaw bu ñu ma jàppee mu may ñu may yóbbu section de recherche bu Colobane fa lañ ma yóbbu. Mm-hmm. waaw. d'accord section de recherche bu Colobane lañ alors bi bi ñu la yóbbee foofu lu jiitu ñu lay garde à vie xëy na du ñàkk enquêteur bi déglu na la ak yu demee noonu foofu aussi lan la yoon jëflante ak waaw bu ñu ma yóbbee foofu noonu tamit. Euh, dóor nañ ma mais am dóor yi moom mooy loolu quoi méttiwul noonu quoi par rapport ak ñeneen ñoo xamante ne fa lañ ma fekk. Hmm. waaw man dóor mun naa ne parce que soo ma xoolee nu ñu dóoree ñeneen yi man damay ne dóoruñu ma. même si dóor nañ ma mais damay ne dóoruñu ma quoi. Mm-hmm. waaw parce que damay sant yàlla quoi affaire yooyu noonu. waaw dóoruñu may neen dóor yi ay dóor fii dóor nii affaire yooyu jeex na ah. d' accord waaw dóoruñu may neen dóor yi d' accord violence bi mm-hmm. xëy na par rapport ak yeneen détenu wala yeneen manifestant yi xaw na am différence ak léegi violence cest nga tëdd vingt ans vingt cinq ans kaso yow la première fois ay manifestant di rey ay ay kii ay homme de tenue ay demee noonu yu di la di di la traumatiser di la wax yoo xamante doo mën a comprendre di la photo tout le temps ki ñëw ñu photo la ñu photo la dugal affaire yooyu noonu ne la ay cocktail molotov ku ñëw rek ñu génnee bit butéel yooyu noonu ne borom cocktail molotov baa ngi ci néeg ba affaire yooyu noonu di la. c'est pas possible doo mën a comprendre quoi. mais da ngay dem ba ne yow doo sénégalais quoi da ngay dem ba ne non man est-ce que sénégalais laa quoi est-ce mérite ça ci koo xamante ne ku diñ la. Mm-hmm. franchement billaay méttiwoon na trop trop trop. d'accord d'accord mais monsieur Diédhiou euh, bu ñu ñëwee ci li nga xamee ni xëy na mooy bi la euh, juge bi wala ki nga xamee ni xëy na mooy commissaire bi doon entendre xëy na pour def enquête ak yu demee noonu. Mm. Euh, foofu aussi yan chef d'inculpation moom lañ la chargé. mais mm. aussi ndax jàpp nga ni vraiment lépp luy droit boo waroon a am xëy na pour enquête bi jaar normal obligé wuñ la nga wax dara. bon en fait foofu li ma doon toppee ci chef d'inculpation. muy mm-hmm. trouble à l'ordre public. muy mm-hmm. appel à l'insurrection muy association de malfaiteurs. muy participation ay manifestation non non autorisée ak yeneen ak yeneen voilà comme nu ko nguur gi di baaxoo mm-hmm. voilà waa Pastef ay terroriste la ñu affaire yooyu noonu xam nga voilà yooyu noonu daal xam nga voilà li ci topp muy euh, sama téléphone bu buñ ko jëlee mm-hmm. dama leen tijji kii bi nu mu tudd code bi bu mm-hmm. dugg ci whatsapp bi jël fa ay numéro waaw bokk naa ci numéro Ngagne Demba Touré parce que moom dañ doon déggante fréquemment affaire yooyu noonu sama waay la quoi affaire yooyu noonu après buñ ko jëlee daf ma laaj kii kan la ma ne ko kii nga gis mu ma loo leen bokk ma ne ko sama frère la waaw sama frère la mu ne ma da ngay fen du sa frère kii yéen a bokk parti Pastef ma ne ko bien sûr ñoo bokk parti Pastef mais avant parti Pastef sama frère la ndax dafa fi doon ñëw fii sama place ñuy toog waxtaan ma ne ko avant parti bi sama frère la woon te ñoo bokk parti je l'assume mhm. jël ay nen vocal ay femmes ñu ma kii di ko traduire à leur manière pour en tout cas daal charger sama dossier pour charger sama do dugg ci groupe bi di déglu ay ay ay vocal yoo xam ne dañ naan non ñu manifester nañu manifester bu ñu seetaan affaire yooyu noonu jël seeni i numéro xam naa certainement pour traquer leen affaire yooyu noonu jot nañu jël sa téléphone uniquement xëy na pour am yeneen numéro yoo xam ne dinañ ko dinañ ko jël à travers sa téléphone waaw d'accord alors mais mais ndax jàpp nga ne vraiment chef d'inculpation yi ñu la tàppeel foofu noonu mhm. yi la enquêteur bi chargé mhm. ndax loolu rek la la yoon toppee ba ñu yóbbu la ci li nga xam ne mooy mandat dépôt loolu la ma yoon toppee yokku ci dara waa wàññiwu ci dara. waaw loolu lañ ma doon toppee quoi. waaw. Mm. ak yeneen yoo xamante ni mënoo ko lim ko mënoo jeexal ko ay mm. des fois ay sept chef de de chef d'inculpation lañ lay toppee. d'accord yenn yi doo doo ko jàpp sax yenn yi doo ko jàpp quoi. d'accord mm. alors euh, ñaata temps nga def section de recherche. Euh, section de recherche maa fa def euh, cinq jours. cinq jours waaw cinq jours yoo xamante ne tamit c'était ce sont des cinq jours yoo xamante ne tambour tambour battant dañoo tambour battant tellement parce fu ñu ma tëjoon violon bu ñu ma tëjoon non seulement midi sax midi sax da ngay yaakaar guddi la yooyu man kese laa foofu noonu ñuy ñëw di ma di ma di ma torturer moralement comme ni ma la ko waxee yow la tëj vingt cinq ans de kaso yow fan nga dëkk sax man leen biño na ñu ne ma moo tax kay xam naa daal genre rebelle affaire yooyu noonu xam ma voilà xam nañu ki jéeju laa sant ñu ne ma mm-hmm. foo dëkk man leen biño na ñu kii ne ma moo tax kay affaire yooyu noonu doo xam dangay ngay bëgg a ndox sax duñ la duñ la ko may duñ la ko may benn femme moom ma indi butéel ndox moom laa doon moom laa doon naanee ma naan naan ma saf ndox rek ma ma saf tuur tuur mm, ndox. Mm. dama ko mujj naan fat-fat ba mu jeex pour tuur ci ndox pour tuur ci ndox lekk sa pour am ko problème la heureusement ci man. ñu indiwaat ñeneen samedi xaw ma man jeudi lañ ma yóbbu foofu. noonu mm-hmm. samedi ñeneen ñëw fekk ma fa. yeneen manifestant waaw man mm-hmm. fekk sama mbokk yi ma doon wër ma doon ba sonn gisuñu ma yeneen manifestant fekk ma fa. Pape Sow fekk ma fa muy sangal Sangalkam mhm, mhm. euh, un certain Biram Ba ma nu mu directeur benn hôtel boo xamante ne ñu ne kii fa la fa la fa woon mhm. xaw ma muy lavoca l'avocat Juan Branco l'avocat d'Ousmane Sonko bu Sangalkam fekkuñu fa euh, un directeur directeur station Olaba Safla station Ola mm, il s'appelle mm. Ngiran ba station Ola moo mooy mm. directeur station Ola quoi moom moo initié passé fu France xaw ma en 2016 yi quelque yu noonu. Mm. moom tam mu fekk fa ñoom nag seen lekk yi dañ doon dugg. léegi moo ñu ñoom ñoo ñu yoroon. d'accord ñu dóoroon gaañ leen ba tëdd sa problème na toog sa deret yi. Mhm. ñu tëdd sa matelas yi deret kese la affaire yooyu noonu. d'accord mhm. très bien donc yaa ngi wax sànq ni jàpp nga ni am na haine boo xam ni jàppoon nga ni takk der yi am nañ ko ci yow biñ la laajee foo dëkk nga ni Bignona mais aussi nga sant sant boo xam foo ko tuddee ni tu es du par mhm, exemple. Euh, loolu aussi nan ko dundee et puis ban torture psychologique vraiment moom loolu aussi noo ko dundee. c'est-à-dire man euh, stigmatisation ethnocentrique boobu noonu. Mhm. man moo ma gën a sonal. man dama yaakaar bu fekkente ne ñun ay sénégalais lañu te ñu dëkk Sine dama jàpp ni ki quel que soit tur bi war ñu laa mën a stigmatiser quoi. di la naan yow fii nga bokk kon lii la lii nga ay demee noonu xama te mhm. ñu bokk ñu ñëpp nekk sénégalais ne sénégalais Sénégal kenn mënu koo xar ñaar benn bopp la yu demee noonu. ba mhm, pare ñuy xool benn xeet di leen stigmatiser di leen toroxal. xam nga di dem ba di leen empêcher yu bëree bëri affaire yooyu noonu. Mhm. loolu daf ma metti ba fu may toll nii sax zaaru bëtu yi nga xamante ne nekkuñ di daw loolu ba léegi mu ngi sama bopp quoi. loolu daf ma metti ba fu metti mën a yem. dafa am torture psychologique boo xam yaa ngi. yaa ngi koy dund def ko ci koy subir quoi dama koy subir. muy lu métti muy lu métti monsieur Diédhiou tey bi nga xamee ne tamit nekk nga foofu bañ war la war la déférer mm. par exemple euh, loolu aussi bëgg naa nga wax ma yan condition yi lañ la déférer mais aussi mm. naka nga yëgee ne vraiment finalement dañ lay yóbbu ci li nga xam ne mooy mandat dépôt non man waa ji daf ma newoon yow yow da ngay dem kaso mm-hmm. waaw loolu la ma directement parce sama sama moom enquêteur bi waaw bokkul ci dossier kenn ci ñu nga xamante ne ñoom ñoom ma fa waaw man moom sama man sama téléphone man moom kese lañ sele mhm. waaw ci ñeneen par rapport ak ñeneen yi affaire yooyu sama téléphone kese lañ sele waaw affaire mhm. noonu parce que tellement nu ñu chargé dossier bi yu demee noonu xama man ma xamoon naa ni ki damay dem xamoon naa ni ki damay dem quoi moo ma ko njëkkoon mais man xaar loolu laa doon xaar ni ki damay dem mhm. waaw waaw bi euh, fan ban moment lañ lay yóbbu rëbës mais aussi nan lañ lay yóbbee rëbës ci suba ñoo xëy suba rek ñëw def après après cinq jours yoo xam ne def nga ko section de recherche d' accord baal ma yëkkati micro bi waaw après cinq jours yi nga xamante def naa ko section de recherche mhm. euh, un lundi parce que je kii mercredi xam nga jeudi lañu ma jàpp un lundi la ñuy yóbbu euh, yóbbu tribunal d'accord waaw lundi la ñuy yóbbu tribunal nga dem ñu mandat dépôt la direct waaw directement nga war a dem rëbës waaw bu ñu demee mandat dépôt bi tamit dañ doon def ay retour de parquet def nañ neuf retour de parquet neuf jours neuf jours retour de parquet dem a ñëw dem ñëw parce que bu ñu demee Euh, suñu juge bi xam nga dossier yu di gën a diis yi. Mhm. waaw xam ne ni mooy mooy mooy rëbës. waaw d'accord léegi bu ñu yóbbee rëbës. Mhm. Euh, fekkuñu fekkuñu fa juge cabine 2. ok waaw dañoo yegg rek ñun daf feebar. loolu waraloon sax. suñu retour de parquet yu bëri yooyu noonu d'accord waaw léegi ñoo mujj pour bañ ñu yàgg ci retour de parquet. Mhm. ñoo mujj jox dossier yi juge cabine 8. moom moo ñu mandat de dépôt. ñu mandat de dépôt ne ne dem leen xaar du yàgg dara dinañ leen woo enquête yu demee noonu xam nga. d' accord waaw très bien premier jour nga war a dugg kaso première jour aussi vraiment ñu ne la dangay ngay dem rëbës. Mhm. Euh, noo ko dundee woon jooju. non dund bu méttee méttee métti laa ko dund. Mhm. parce que dama jàppoon ni ki. Mhm. mérité wu ma dugg kaso. ndax defoo lu ko lu ko jar. ndax defuma li nga xamante ne moo jar ma dugg kaso. parce que kaso dama ko doon dégg. Mhm. ni nga ko doon déggee muy metti trop nga nar a dem dundu loolu noonu mu nekk loo xam ne da ko doon dégg nga nar nga nar ko dundu ñu xam depuis Senghor ba Abdou Diouf. Mhm. ba Abdoulaye Wade manifestation dafa nekk loo xamante ne kuñ ci jàpp ay section de kii ay secteur centrale ngay yem wala ay quelques jours ngay def kaso dellu si parce que dafa bokk ci constitution bi muy suñ droit la daal affaire yooyu noonu boo gisee muy metti c'est parce que nu ñuy réprimander wala ñu ñu koy ñu koy bañ ñu koy bañ a wala policiers yi di mate nit ñi loolu mooy tax nit ñi di mu mu dem ba ay mort affaire mais manifestation suñ droit la donc boo wàccee si terrain di di manifester sa mécontentement par rapport ak lenn lu ñu def dañ la war a bàyyi nga manifester. absolument mais dem ba dañ la koy tere mais buñ la ci jàppee dañ lay dóor. des fois nga dee ci wala nga gaañu ci wala ñu yóbbu la kaso mu nekk loo xamante ne lu ma déploré la mm. lu ma déploré la franchement d'accord d'accord alors lan moo la lan lan nga njëkk gis ci kaso bi vraiment mu déstabiliser la moralement psychologiquement aussi vraiment ban image moom nga njëkk a découvrir ci kaso bi xam ni ndekk lépp lu ñu ma doon wax ci kaso wu Sénégal dëgg la li ma fa dund mooy mm. premièrement bu ma fa duggee mm-hmm. mooy conditions yi d'abord les conditions étaient inhumaines nañ ko wax te de mhm. condition yi doxul doxul doxul doxul dara dara dara boo fa duggul doo xam am na yenn yoo xam xamante dañ koy wax mu am yoo xamante ne mhm. duñ ko wax pour bañ a xërte dignité humaine humaine tant pour moi bi ma fa duggee première jour mhm. ba ñu def ñu lu ñu lu ñu doon def ay wottu ay simi demee noonu xama ba indil ñu ñu nar a dugg ci chambre yi di kii euh, séparé séparé ñu ay groupe ñii dem si chambre bi ñii bii ñii bee affaire yooyu noonu ñun cinq ñoo ñëwoon si chambre douze mm, mm. falaa naroon rentré chambre douze ñu ñëw taxaw garde bi di tijji mm-hmm. garde bi dafa tijji rek bunt bi tijjee ko rek benn air boo xamante ne la la ñu rencontré ah air odeur boo xamante ne ah, man dama reculer de trois pas ci ginnaaw taxaw garde bi woo ma mu ne ma champion mm-hmm. ma ne quoi mu ne ma gis nga fii di ngay gis fii fii mm-hmm. fa nga jëm amoo beneen pexe ginnaaw dugg si nga fii fii nga jëm te li la fa mën a dëkkuloo muy am benn mantal de fer mantal bu dëgër. Mm. xam carrément ñii fi nekk ñii nii ay góor lañ ni yow te yàgg nañ fii c'est clair am ñoo xam ne yàgg nañ fi. xam aussi ni ki fii yàgg-yàgg di fi jóge yàgg-yàgg fii di fi jóge loolu moo la mën a dëkkuloo fii. d'accord d'accord. Mm-hmm. ma am courage. dëkkëral dugg. ban heure la woon guddi la woon. waaw ay timis ah ay timis yooyu noonu. xam nga d'accord d'accord d'accord dugg. Mhm. voilà ñuy kii seen tànk yi nga mën a teg tànk bi dugg noonu noonu noonu noonu dem taxaw. d'accord ñeen taxaw ñu expliquer leen chambre bi. luñ ci mhm. nangu ak mhm. luñ ci luñ ci liñ ci bañ. d'accord voilà loo xam ne da ciy da nga ciy bàyyi xel affaire ah, yooyu noonu. lu mel ni ay sangu ay saagante ay xeex yu demee noonu yooyu dañ koy interdire ci biir quoi. mais du ñàkk quoi affaire yooyu noonu. c'est clair néeg boo xamante ne niir yi ñu jóge fu nekk ku nekk sa attitude attitude ku nekk manière voilà affaire yooyu noonu caprice affaire yooyu noonu mm-hmm. du ñàkk d'accord très bien mais bëgg naa aussi nga wax ma ci ci li ñu bari di xalaat première guddi kaso métti na façon condition wu tëdd bi nga xam ni moom ngeen fa waroon a def foofu aussi lan nga ma ciy wax bi nga ñëwee guddi jot nga baaxoo woon di tëdd ak sa soxna mm-hmm. baaxoo woon di tëdd sa kër mm-hmm. guddi jot nga war a tëdd ak ay prisonniers yoo xam ne conditions yu déplorable la nan ko dundee muy man balaa ma faa dugg. Mhm. dama feebaroon quoi dama feebaroon. ah bon faju waaw faju ba yor ma defoon rajo sax. Mhm. faju ba wér quoi muy nàkk bi ma doon sonal. ma faju ba tane loolu ma joxoon initiative dugg ci soxna ma takk soxna deux deux mois après ñu jàpp ma. ah bon mois après ñu jàpp mu nekk loo xamante ne lu ma sonal la ci biir kaso bi. da nga takk da nga takk soxna deux mois après rek ñu jàpp la deux mois après ñu jàpp ma ma dugg ci biir. heure te de jot. muy mm-hmm. 22h ñu mm-hmm. tàcc. Mm-hmm. ñëpp jub commencé tëral nit ñi man. man je me demandais quoi nit ñi nekk fii nii boo ba toog bi sa problème la tëdd bi nu muy demee quoi c'est ce may yàkkamti heure bi jot ma xool nan la ñuy def kon heure bi jot gaa yi tàcc ñuy jóg ma gis ñu tëral kenn ci miir bi bopp bi féetoo côté beneen tëral keneen ki bopp bi féetoo nii mu am ñaari ponkal yoo xamante ne ñooy ñëw taxaw kii day taxaw sa côté bi kii taxaw si tànk yi. tànc la tànc la ba nga sës kii. Mhm. ñu tëralaat keneen bopp bi féetoo côté bee ñu tànc ko ba mu sës ñu tëral kii nii ainsi de suite ba chambre bi fees. waaw léegi emploi ak chef de chambre yi. Mhm. ñoom seen place yi day xaw a yaatu. ak yooyu d'accord mhm. voilà. dañ lay tànc ba fii la fi nga tëdd bu fa jógee. dafay mel ni kenn tëddu fa. te ñoom dañ lay bu ñu la tàncee ba pare dañ lay avertir boo jógee da ngay perdre sa place muy maanaam boo jógee doo toog doo toog. parce que boo xanaa nga toog ci tànk gars yi. Mm-hmm. doo am loo def. doo am loo def fan ngay fan ngay taxaw. c'est pas possible. da ngay mm-hmm. la demee. nan nga def ba tëdd. nan nga def ba gérer paquetage bi paquetage bi. day teg loxo bi nii. Mm-hmm. teg bii. loxo bi sax du déborder. parce que bu déborder rek day gël place. mais da koy muñ parce que boo jógee rek fan nga fan nga dem. premier jour dama jug dama jug dem dem sës si. kii bi nu bi nii. ma sës fa carrément pour bañ baña laal gars noonu laa taxawee. su ma toogee rek su ma moytuwul naa daan naa daanu si gars yi. Mhm. léegi damay mel ni ku xaw a toog tuuti nii. parce que voilà kii bi ni ku xaw toog tuuti nii. fekk sa feebar bi sonal na la waaw ma taxawaat noonu noonu. noonu noonu ma mhm. pour man deux jours laa fa def. chambre 12 boobu noonu. deux mhm. jours laa fa def. ma dem chambre 40 47. yëkkati micro bi xawoon na tane foofu chambre 47 xawoon na tane. mais ak gars yi nu ñu doon nit ñi dafa dem ba foofu tamit fees paquetage am. foofu nag la la kii bi déclenché. la sa feebar bi déclenché parce que dama doon toog dama doon toog su ma sonnee ma jóg ba bërsëg boo boo bu bërsëgee. doo am mhm. foo tëdd tamit parce que chambre baa ngi fees. del toog bi sa problème la. Mhm. noonu ngay toog léeg mhm. nga gëmantu nga wéeru nii ci miir bi noonu affaire yooyu noonu xam nga benn jour rek ma sentir benn douleur bu atroce fii nii ci sama naq sa naq bi d'accord fu fa la affaire yi déclenché noonu laa ko doon dundee euh, infirmerie bi mooy loolu d'accord d'accord mbir mooy loolu d'accord très bien alors Landing Diédhiou bokk ci manifestant yi ñu bàyyi ci li nga xam ne mooy vague de libération bi moom la seen bés di am ak jotaay bala maa jeexal bëgg naa nga wax ma quand en tant que jeune première fois nga war a dem kaso nga wax ma psychologiquement ban image moo la gën a marqué bi ñu la jàppee bi nga tëddee kaso ba génn bi ngay njëkk gis sa soxna après mandat dépp la bi la say waajur di seet si wala bi la oto bi waree yóbbu sa soxna topp seeg des trucs comme ça ban image vraiment moo la gën a collé psychologiquement nga xam ni depuis ñu jàpp la ba léegi marqué na la trop. li ma gën a li ma gën a marqué. Mhm. te mu nekk boo xamante ne loo xamante ne surprise amère surprise. Mhm. mooy ci biir ci biir chambre yi d'abord. ci biir chambre yi. Mhm. mu ngi fay am boo xamante ne. nit ñi xamuñu ko. muy maanaam ñi nga xamante ne ñoom lañ jox responsa mm-hmm. responsabilité wu chambre bi lu leen neex la ñuy def lu leen neex la ñuy def. Mm-hmm. corruption nga fa injustice ba nga fa. corruption muy par exemple yow boo xawee tane boo amee xaalis. Mm-hmm. dañ lay dañ lay dañ indi dañ lay xëcc seen wet. muy maanaam lépp loo xamante ne. yow privilège la waaw da danga koy partagé ak ñoom. waaw lu ñu soxla muy cigarette muy yenn yi yow yaa leen koy assuré par force parce que dañ la jox fu nga mhm, tëdd mhm. mu nekk loo xamante ni lu métti la wala ñu xool la gis la xool la nga bañ leen neex quoi ñu miti la ñu miti la te kenn du ci mën dara ñu miti la d'accord wala indi la fitna affaire yooyu noonu. mu nekk lu ma metti la. d' accord très bien. Mhm. alors monsieur Diédhiou naka nga dundee sa ginnaaw nga yor borom kër yoroon mhm. multi service xëy na donte ni yaa ngi ci yoon njaboot gi dépasse dina la mhm. war lu ñu lekk lu ñu naan ak fay location yu demee noonu presque huit mois nga dund saa ñoom loolu aussi noo ko dundee. benn traumatisme boo xamante ne. comme ni mu la expliqué. deux mois laa tàkk soxna ñu jàpp ma mu nekk doomi jàmbur mu indi ko sama wet yàgguñu même pas ñu séparation boo xamante ne franchement métti na. métti mm-hmm. mm-hmm. ma trop trop trop trop ma xalaat aussi man suis si enseignant war a dem former. war a dem former ay xale. Mm-hmm. ñu privé ma ko. ma nekk benn entrepreneur bu ndaw entrepreneur bu ndaw parce que nee naa la amoon naa ñaari mille services. benn bi dama ko tëj avant avant ñu maa jàpp parce que aw moon temps moment yooyu noonu. bii dama ko mujj dugal market muy man dama ko jaayi. parce que euh, dafa métti yoon quoi cest am na yoo xamante ne mënoo ko wax ko bien sûr parce que boo ko waxee dafay mel ni. yow sa degré de patriotisme matul quoi. d'accord Sénégal Sénégal daf ma ko jaral. Hmm. moomatuma ko mais Sénégal daf ma ko jaral quoi. d'accord su ma pertoon lépp lépp Sénégal jaral na ma ko. d'accord. ndax dama ne patriote la don de doxal. d' accord d' accord waaw. très bien mm. ndax vraiment li nga jot a dund yëpp quand même te position politique rek waral ko euh, ban message nga ci bëgg a jàllale tey ex Pastef la ñuy wax Pastef moo tax ñu tëj la kaso. pendant 7 wala 8 mois nga tëdd ko kaso ba léegi nee nañu existé tul Bassirou Diomaye Faye seen candidat ëllëgu parti beeg seen doxalin lan nga ma ci wax en une minute. li may njëkk a wax mooy. Mhm. après avoir déploré li nga xamante ne moom lañ def. Mhm. j'appelle aux Sénégalais ñu taxaw nañ taxaw tem endiguer mhm. lii freiner lii parce que fu mu jëm baaxul fu ne ni personne n'est à l'abri c'est clair que ñu jàpp la ñu bañ laa jàpp bien sûr personne n'est à l'abri mhm, mhm. lii dafa nekk loo xamante ni fu mu jëm fu mu jëm baaxul nañ ko tax nañ taxaw ñun ñëpp sénégalais yi muy jigéen muy góor muy mère muy pay nañ taxaw freiné lii ñëpp gis nañ dëgg bi léegi fu mu féetoo d'accord ñëpp gis nañ dëgg bi fu féetoo mhm. dañ doon ne parti parti insurrectionnel parti lii islamiste yu demee noonu d'accord di ñu jiiñ lu nekk mais tey jii nii dëgg bi feeñ na c'est dëgg bi feeñ na c'est clair très bien mhm. alors du ñàkk aussi vraiment pour terminer nga am message boo xam ni moom nga bëgg a jàllale mais aussi en tant qu'enseignant mhm. euh, ba léegi yaa ngi ak bien sûr maa ngi sama poste. Hmm. tey sax jóge naa école. dem nemmeeku leen xam naa dans une semaine. dans une semaine dinaa regagner les classes quoi. d' accord alors hmm. benn euh, message boo xam ni xam naa sax koo xam ni xamoon nga ko muy euh, Mouhamed Bilal jaata hmm. nekkoon maire bu Kër Massar Sud. wala noor bu ma juumul benn frère bu ñuy wax Pape. sama waay la moom it ñu bari xam nga ni Paco. ñu bari ñu ngi annoncé ni génn na wala génnul moom it bëgg naa mu am occasion leeral euh, Paco yaa ngi direct ci Senbuzz ci appel. wala parole aux détenus politiques Paco maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay congaan nuyu auditeur mhm. di ziar sa invité boobu toog foofu. d'accord alors jamono jii ñu ngi wax euh, libération détenus politiques yi ñu bari ñu ngi xalaat ni Mouhamed Bilal Diatta ci ñi ñu war a bàyyi ci la bokk wala bàyyi nañ ko ba pare lan ngay leeral ci loolu. waaw loolu même ñun depuis jeudi sax ñu ngi doon xaar libération Mouhamed Bilal Diatta. Mhm. mais présent ay fausse information la daal nekkul loo xamante ne Mohamed Bilal Diako Diatta n'est pas encore libre quoi jusqu'à présent. ah ba léegi bàyyeeguñ ko. non non non ba léegi bàyyeeguñ ko te yu bëri nag ci Kër ma saar ki yaakaar nañ ni tey jii nii bàyyi nañ ko parce que statut yi ñu doon daw liste yi ñu wane woon ni gars yi bàyyi nañ leen. d'accord turam la ci figure woon mais jusqu'à présent daal sunu maire moom gisaguñ ko bàyyee ñu ko. d'accord ndax jot jotu leen am écho ba tey lu tax xëy na bàyyeeguñ ko ndax maa ngi doon def émission ak benn détenu bu ñuy wax Landing Jeeju moom wax na ma ni gisante na ak Mouhamed Bilal Diatta moom sax dafa jàppoon ni génn na ndax lu tax génnagul ba léegi xamagu leen ko wala amu leen écho ci li ko waral. waaw tey jii nii xam nga amaana côté boobu sax mën naa ko bañ a mais li ci am solo mooy. Bilal hmm. xam nga tey jii nii premier jour weeru ci daaw lañ ko arrêté pour affaire moom nag Bilal nekk na koo xamante ni genre nit ku gëm fi mu dëkk la mhm. Kër Massar gi nii manqué nañu fi trop parce que transitaire la benn bàyyi liggéeyam xam nga dugg ci politique bi pour jàppale commune Kër Massar. figure mhm. bi mu ci duggee nag xam nga moom Bilal moom boo nee Ousmane Sonko nee Bilal. bien sûr ci absolument mhm. parce que dafay gis boppam ci Ousmane Sonko loolu moo ko dugal ci politique. d'accord pour réewam léegi nag nii nii nii nii nii li ñu mën a jàpp mooy xëy na peut xëy na régime bi fi nekk Bilal daf leen mu génn parce que jàpp nañ ni day influencer booy wala dara wala j'ai pas compris vidéo bi mu mujjee def. si lañ ko mm. jàppee woon parce que dafa jógee États-Unis rek ñëw def annonce am ci benn vidéo. Mm-hmm. vidéo boobu lañ ko téye ba léegi nii. d'accord alors am am na benn influence politique boo xam ni am na ko ndax it xalaatoo ni xëy na euh, comme li ni nga ko waxee léegi rek ragal am benn crante ni xëy na am na influence bu bu mën a indi ci jeunesse bi looloo tax ñu bàyyi ko fa léegi xalaatoo effectivement effectivement hmm. parce que moom fii gars yi dañ ko jox bopp tamit moom hmm. moom tegul boppam de hmm. bilaal première fois bi mu dugg ci politique ci la am raw gaande gi mu ci am du woon reebam sax mais gars yi ñoo ko fi teg donc lu mu fi wax nit ñi wala gars a dañ koy déglu quoi te moom tamit dafa nekk koo xamante ni boo ne moo ko Ousmane Sonko coppi collé dañu nduróol lépp bilaal amul lu muy d'accord du nit kuy dellu ginnaaw du nit ku ñuy xoqatal muy bàyyi wala muy kii xam naa ne peut être yaakaar nañ ne kii moom bu ko génnee day gën a raqaajo. Hmm. waaw du dellu ginnaaw parce que du nit kuy dellu ginnaaw moom. lii ñu ko dund yëpp nii de mu nekkoon lay nekkaat. mais li ci am importance mooy. Hmm. comme ñu ngi libéré ay moroomam ay moroomu meeram ay détenus politique vraiment koo xamante ne dafa yor njaboot. Hmm. tamit aussi quoi mise à part politicien dafa yor njaboot. nekk kilifa am ñu mu yore. donc ñu téye ko fii ba muy bëgg a nekk at ñun mm. waa Kër Massar. Mm. ak ñi nga xamante ne ànd jàmmam lañ vraiment rafetlu wuñu ko. ñu ngi ciy sàkku daal vraiment. Mm-hmm. ñu ngi daan génn mais génnul. génnul ba léegi jusqu'à présent waaw. d'accord c'est très bien à préciser que ñu bari ñu ngi doon jàpp ni tamit génn la Paco moom rakk la ci ki nga xamee ni xarit la ci ki nga xamee ni aussi mooy Mouhamed Bilal Diatta moo doon leeral euh, Paco ñu ngi lay ñu ngi lay remercier bu baax a baax vraiment ci ci jokkoo bi ak seen bës. waaw ñu ngi lay remercier yow congaan yow tamit nit baax nga xam nga message bi nga xamante ne yaa ngi koy lancer foofu vraiment moom daal na ñëpp xam ni Bilal Diatta moom n'est pas encore libre d'accord waaw te ñu ngi koy ñaan tamit aussi chef de l'État xam nga ñoom ñi nga xamante ne ñoo leen fa téye ñu bàyyi leen d'accord d'accord le message est passé Paco le message est merci beaucoup merci beaucoup alors Paco la moom it mi ngi doon lancé message landing xam nga ni kenn ci leaderu Pastef yi mooy Mouhamed Bilal Diatta man sama xarit la maa ngi lancé message tamit mm-hmm. moom ku bëgg réew mi la mm-hmm. ku bëgg euh, nit la de façon général mais mm-hmm. aussi ko amal njëriñ askan bi la kooku tamit yaakaar naa quel que soit alpha ak casquette politique bu mënti am quand même bu ko réew mi soxlaa jaadu na état bi état bi libéré ko vraiment waaw waaw bon en fait euh, man de damay njëkk kii ni nga xamante ne proche am la ak yow mi nga xamante ne xarit xaritam nga mhm. masaw leen franchement métti na nga am benn proche ñu tëj ko ñuy bàyyi ay détenus politiques mhm, mhm. ba di bàyyi ay maire comme moom moom ñu koy bàyyi ci biir quoi loolu dafa nekk loo xamante ne injustice la kenn waru ko mën a supporter kenn waru ko mën a supporter d'ailleurs pour pour vous dire man jour bu may may génn si laa dajeeg moom moom Bilal Diatta moom Bilal Diatta laa dajeeg moom ma laaj ko mu ne ma non man lañ may bàyyi parce que dégg naa ci écho ni ki man suñu ma bàyyee bëccëgment bi nii. damay créer benn troupe public quoi pa kii public parce que gars yi may xaar fee ne quoi dañ créer benn kii. donc dañ may bàyyi ba ay zéro heure une heure du matin yooyu noonu ma ne ko ah kon de salaam bu fekkente loolu mooy am daal. Hmm. ñuy sant yàlla. mu nekk koo xamante ne ku baax la. mu nekk koo xamante ne référence la. Hmm. mu nekk koo xamante sama idole la ndax amul nu mu ñu taxawlee biir kaso. amul nu mu déterminé woon ou ouvert ouvert nag. ci ñëpp noonu la mel waay ouvert ci ñëpp vraiment noonu la mel da ngay jaaxal ak moom ma bàyyi lépp waxtaan ak yow. ndeysaan day taxaw day taxaw billaay franchement mhm. franchement maa ngi koy ñaawlu bu baax a baax. di lancer un mhm. appel. Mhm. Euh, à nguur gi. pour ñu bàyyi ko. ñu bàyyi ko ndax nit kii nja mu ngi yore njabootam. deful dara lu dul Sénégal la bëgg. voilà mu nekk aussi. yaakaaru ab population muy population Kër Massar mais nord xaw ma je sais même pas mm-hmm. franchement maa ngi ñaan ñu bàyyi ko moom tamit mu dem regagner famille am dund ak ñoom aussi alors monsieur Diédhiou on vous encourage quand infiniment li mm-hmm. ngeen dund métti na wax dëgg yàlla bëgg sa réew wala bëgg seen réew moo tax vraiment ngeen dund ko mm-hmm. mais yàlla lii la bëggoon lii la dogal on vous encourage infiniment quand même euh, franchement di la massawu ci aussi li nga xam ne jot ngeen ko dund merci beaucoup merci ma am lu ma yokk tuuti euh, maa ngi woo samay morom patriote damay dégg bu ma génnee ba léegi damay dégg ñu naan waaw léegi dem leen noppalu affaire yooyu noonu xam nga c'est pas l'heure de noppalu. non man nag famille bi laay xalaat damay bañ famille bi foog ni dañ lay jëlaat. non waxuma <laughs> lenn loo xamante ne lu ñaaw quoi. ok ok heure doggali lañ toll quoi. nañ ko jeexal quoi appel à <laughs>